bëgg koo takk soxna xam ne yoon may na ko mu xool kanam ga ak teng ya wala boog muy kuy faj bu dee góor guy faj sañ naa xool ci jigéen ja digg bam ca nar a faj te bañ a xool loo xam ne bokkul ci la muy faj waaye laal la tolloog lam soxlaa faj ci jigéen ja sañ na ko caa xool wa amal mu te jaal lëttu daal màggat mu jigéen fa la ñeel na ko ay yaraa mu gis wa ci xaa kanamam nga xalaa kulli xaal ci mépp mbir maanaam jigéen joo xam ne daa màggat ba góor ñi soxlaatuñ ko moom nee na xool kanamam wàññiwul dara li tax ñu mayee ku xool màggat mu jigéen mi mooy dañoo jàpp ne fitna du ci am ca xool ga kon ba tey waxambaane mu jigéen ba waxam nañ ne sañ ngaa xool kanamam bu fekkee jubluwoo ca xool ga ak bànneexu te it ragaloo ca fitna wa yunha def na tere terek araamal an nisaaw jigéen ña xan wasli shaari walis jokk kawar waxanil washmi ak walis njam njam mën naa nekk njam tuñ wala njam am siiñ wala ñu wax njocc xot yaram ba mu nàcc ñu def ci lu ñuul ba mu ñuul dafa wax ne jigéen araamal nañ ci moom jël geneen kawar di ko yokk ci kawaram wala muy jamu tuñ wala muy jamu am siiñ wala muy xotti yaramam kenn di ci def lu ñuul ndax bëgg koo taaral am na addis bu xaw a gudd boo xam ne ñëw na ci ñaari téere addis yi gën a wér ci téere addis yi tàmbalee laana allahu alwasilata wal mustawsilata wal waashimata wal mustawshimata wal mutanammisaati wal mutafallijaati lil husni al mughayiraati xalqallah dana yàlla rëbb na jigéen jay jokk kawar ca kawaru boppam ak ka ko koy defal yàlla rëbb na jigéen jay jamu ak ka ko koy defal yàlla rëbb na ñay xus wala ñiy wat seeni kawar yi yéen ndax bëgg sewal yéen ya bëgg koo taar taaral ba tey yàlla rëbb na ñuy jéem a xacc seeni bëñ di ko soreele ba bëgg mu am sàkkalaw yàlla yi demee noonu ngir taar yooyu yëpp lu ca jigéen ja def ngir taar taarlu waaye fekk na ko yàlla bindee woon dara sikku ca mu daal nekk lu araam waaye nag bu ko defee ngir fajtal wala ngir dindi sikk soo xam ne dogal baa defan sikk sa nekk ca kon dara nekku ca wa tasrabina wa mafhumu qawlihi lil husni an al harama huwa al maf'ulu lil husni falaw ihtija ilayhi bi ilaajin aw aybin fala ba'sa bih lil husni jim wax ci addis bi wane ne ne def ko ngir tartarlu moo aay waaye bu fekkoon ne na ko yàlla bindee ci coobareem daa mel noo xam ne daawu na binde nit xam ne kon ayub la sikk la kon mënees na koo dindi ni ko opéré kooku yi demee noonu waaye nag kawar gi moom bu ko yàlla bindee néew kawar itam bu mu tax mu di ci jéem a jokk genn kawar njam li itam bu mu jéem a jam fenn ci yaramam moo xam tuñ la moo xam siiñ la moo xam feneen la yéen itam noonu la bu mu jéem a wat ay yéenam ndax bëgg koo sewal bëgg koo jekkal waaye nag lu mel ne ne yàlla def ay bëñam wala beneen cër ci yaramam moom jigéen ji bu fekkee noona daa am sikk kon dem fajtal ko dindi ko dara nekku ca léeg-léeg ñuy faral laaj ba xam ba ñu aayee fab kawar jokk ci bopp bi ndax manees naa fab rek mbaxana moo xam ne dañ ko ràbb ak kawar këpp ko ci bopp bi nga xam ne kon kenn jokku ko ca loolu day ñu waa màkk yi ubbee ñoom ci buñ leen dee laaj dañu koy aaye waaye nag alqaadi xiyaad kilifa gu mag la la wax moom mooy manees na ko wàññiwul dara ndax waajtaay rek la bokkut ak jokk kawar moom la saraa bi yaxal di wax naa wa mafhumu waslin annaha law lam tasilhu bi an wadahathu ala ra'siha min ghayri waslin لجاز كما نصح عليه القاضي حياض ومن لبس كنا مسل خفا أو بر أو نعلا با أو دال بدا أو مجكي بيمينه تم ديجورم وإذا نصح نيم بغنا سمي بدا أو مجكي بشماله تم جامونم sopp nañ boy sol lu melne ay bot mba dal bal men turay nga ñëk sol tanku ndeyjoor boy sumi ñëk sumi tanku chamoy lepp lu xet teranga rek sopp nañ ndeyjoor jitu ja chamoy mujj wala ba sa ayut bil intihali ci sol ay dal qaiman bi muy aji taxaw sol ay dal taxaw wañul dara mok sol ko tok ñoyamo lu ci nek sañas nako ويكره ديف نسيب المشي دوخ في نعل تيو دال واحدة نودي وين سول وين دال كيب دم ak mom fekke ne duku ben tank ba am lu ko ci dal badara mu sol wen dal rek bayu ci dess dañ ko ay motax mu ne sip nañ ko yonte bi da ko ay won rek motax watu ko def na sip at tamasilu natalia fi ashurati ci lalia wal qibab ak qubaya wal judraaj ak miir ya wal xaatam ak ub jaaro xeetu aaye gi ñu aaye nataal daa soqi ko ci addis ba ku baax ka waxan ne ñi gën a metti mbugal bu bis pencee mooy ña daa nataal ndax dañ leen di wax def leen ci ruu loolu nag gëstukati léegi nee nañu photo yi nga xam ne moom ngay jekki-jekki photo rek génn jëmm ji na meloon mu génnaat bokku ci ndax moom ka koy def du dafa nataal di jéem a roy yàlla mbaa dara déedéet jëmm ji yàlla lëggéeyoon rek moom la génnewaat teg ñoom nee nañu araamut dara nekku ci rawante na nag ni ñu ko aajowoo ci doxinu àdduna ci lu mel ne dantiteeg xeeti passeport yeeg yooyu mu des nag bi nga xam ne kooka du ko foto rek teg moom ci boppam mooy jéem a jël loxoom di dessin di jéem a nuróoleeg la yàlla sàkk kooku nag la ñuy teqale bu fekkee dafa dessin loo xam ne am na roo jëmu jëmat sëkk waaye da ko def ci lu mel ni miir wala lal wala xubba wala jaaro mbaaw kayit yu mel noonu nga xam ne nekkul jëm ju ne léegi ju mën a taxaw daa taq ca miir ba mbaa loolee kooku nee nañu moom sib rek la te it nee nañu bu ko desee woon ci mbubb nga xam ne mbubb ma dañ koy sol di ko toroxal wala mu desee ko ci ab tamp nga xam ne dañ koy jóg gi waaxu dem ak dikk kenn du ko sib waaye nag bu ko defee noonu ba noppi def ko ci ab miir ñu koy seetaan wala ci ab rido wala ci ab lal ñu koy xool su boobaa lañ koy jip ñu ne nag la araam kay mooy mu defar jëmm joo xam ne am na ruu mu nekk estati jëmm ju ne léng mën koo teg ci kaw taabal ji baa mën koo teg ci suuf ñu jàkkaarloog moom cër ya mat sëkk manquéwul dara moo xam doomi aadama la moo xam leneen la ci li yàlla sàkk tem amu ruu loolu daal lañu wax ne moom ca dëgg-dëgg moo araam ci tëkk boobu ci addis bi kay def na mel noonu ci la jëm nde sax lépp lu yàlla sàkk te amul roo mel ne garab wala leneen lu ko nuru gaal ak otoog lépp rek loo xam ne jëmm ju yàlla sàkk la ba yàlla jaarale ko ci doomi aadama mu defar ko waaye nekkul jëmm ju am roo daal moom aayewuñu ku ko def jëmm ju ne léegi ay wuñ ku ko fatu ay wuñ ci dara koku mom dagan na waye nak lepp lu am ru dal mom kenn du ko saña defar estati mu ne jëm ju ne leng taxaw ay ciram mat manki wu dara dara ci lañuy tekko tekku bu metti bobu kon ci bokoy tak da ngay wax ne xeeti vital yi ñetti xaj lañu amna ci buñ aramal te moy bi nga xamne koka dafa natal jëm ju am gro te bu def estati def jëm ju ne leng mëna taxaw ak bopam muy ben ba ko ñaarel moy la mu nataal moom amu tuuroo ne ki garab mbaa xeetu doomu mango mbaa doomu geneen garab wala lu mel ne gaal wala mel ne saxaar wala mel ne oto lu mel noonu dagan na dara nekku ca ñetteel bi nag mooy mu dessin loo xam ne am na ruu ni ki ab gàtt wala gëléem wala xar mbaalu ko nuru waaye nag da koo dessin ci lu mel ne ab miir wala këyit ak lu demee noonu waaye def ko estati muy jëmm ji mën a taxaw ne léng kooku la ñuy wax ne sib nañ ko bu fekkee da koo def ci lu mel ne miir ñu di ko seetaan wala lu mel ne plafond xaddub néeba wala lu mel ne rideau baag yu demee noonu nga xam ne moom kenn du ko toroxal kooku la ñuy sib te su fekkoon ne loolu da koo dessin ci lu ñu toroxal ni ki yére yu ñu sol di tëdd ak moom muy xar wala ab fauteuil bu ñu toog wala ab càpp ñu ci joggi dama ko dikk moom nee nañu sax kon duñ ko sibati nee nañu sax moom la borom téere bi junj ci lii mu wax naa walay sa raqmu te rëdduwa fi saw bi ci malaan min zalika muy bokk ci loolee wa tarkuhu waaye ak bàyyeem ahsanu moo gën a rafet nee nañu li tax mu daaneele wa tarkuhu ahsan bàyyi ga bañ ngaa def moo gën mooy boo weesoo xaaj ba ñu araamal ak xaaj ba ñu daganal ak si ci xaaj ba ñu sib ak ba ñu sibut boobu ñu tuddee lu ñu sib ak lu ñu sibut daa am ñenn ci borom xam-xam yi ñu wax ak araamam ndegam nag am na ñu waxuk araamam nag moo tax mu naa bañ ngaa def sax moo gën wal xaasilu kama yuqazu min kalaam ibni rushdin wa xayrihi أن التماثيل على ثلاثة أقسام المحرم منها ما كان على صورة حيوان كاملة ولها ظل قائم وحمل عليها ما ورد في الحديث من أن فاعل تلك الصورة يحذب يوم القيامة ويقال له أحيي ما قلقته والمباه ما كان على صورة غير حيوان كصورة الأشجار والفواكه والصحاب مما هو مصنوع لله وليس حيوانا والمكروه ما ذكره المصنف من صور الحيوانات المرسومة في الأسرة والحيطان من كل ما كان غير ممتهن وأما التماثيل المرسومة في الأشياء الممتهنة فلا كراهة فيها ولكن تركها أولى وهي الآتية في كلام المصنف وليس الرقم في الثوب من ذلك وتركه أحسن وجعل سرابي مبند تنبيه يستثنى مما له ذل قائم المجمع على حرمته صور لعب البنات فإنها لا تحرم ويجوز استثناؤها وصنعها منيت وصنعها وبيعها وشراؤها لهن لأنهن يتدربن بها على حمل الأطفال دا وخني بو ني ارامنا nga defar estati boo xam ne jëmm ju am ruu la dañ ciy génne boo defaree ay foyukaay yoo xam ne xale yu jigéen ñi mën nañ ko yor di ci jànge bis buñ amee doom nañ koy yoree wala sax buñ leen de yorloo xale rek yoo xam ne juruñu ko nañ koy yore kon li ñuy wax doomi tubaab ci waxin wolof mooy li ñu liggéey muy nuru nit di nuru xale mënees na ko wutal xale bu jigéen mu di ko yore di ca xamee nu mu yore xale nga xam ne kon liggéey fowukaay yooyu dagan na jaay ko dagan na jënd ko it dagan na bu fekkee dañ caa jublu rek xale yu jigéen yi mën caa xàmmee nu ñuy yore xale waaye nag mag moom sañu koo jënd ngir boppam rek wala ngir di ko rafetale ak néegam rek mbaalu ko nuru kon nu dellu fàttalewaat ne ñu bari ci borom xam-xam yi waa jamono ji daal nee nañu photo yi nga xam ne appareil rek ngay yoro daal di koy photo mu génn bokk tëg yi addis bay tëkkoo ñu koy araamal déedéet ndax moom kooka jéemuta defar lu nuroog la yàlla defar daa fekk la yàlla defar rek mu am jumtukaay daal di koy photo génne ko rek ne nii la mel loolu nag nee nañu aayul wàññiwul dara rawante na nag ni nga xam ne moom lañ ko yittewoo ci doxinu jamono nu bañ a fàtte ne lu amul ruu ni ki jumaa wala jàkka wala oto wala saxaar wala garab lépp loo xam ne daal amul ruu ku mu neex nga foto ko ku mu neex nga dessin ko mën nga koo def sax estati muy jëmm ju ne lëng wàññiwul dara lu am ruu rek kay moo am teqale yañu la waxoon baabul li ab bunt la fi taxaami ci ñam wa sharaabi ak naan daa bëgg wax teggi ni lekk ak naan wa ida akalta ndem bëgg ngaa lekk aw sharibta wala nga bëgg a naan fa waajibut aji waral la xale ka ci yow waruk sunna an taqula nga wax ne bismillahi wa tatanaawala te nga yootoo bi yaminika ci sab ndeyjoor bokk na ci teggi ni lekk ak naan bala ngaa tàmbalee lekk mbaa bala ngaa tàmbalee naan nga wax bismillahi nee nañ nag doo ci boole arrahman rahim na nga yem ci bismillahi rek bokk na ci teggin tam booy lekk wala ngay naan nga defee ko sa loxob ndeyjoor bañ koo defee sa loxob càmmooñ lu may nga am gànt ci ndeyjoor bi fa isa faraxata ndem noppi nga faltaxul ni nga wax ne alhamdulillah sopp nañ boo lekkee ba noppi wala boo naanee ba noppi nga sant yàlla wa xasanun te aji rafet la antal xaqa nga mar yadaka sa loxo qabla masiha ci njëkk ak fompam sopp nañ boo lekkee ba noppi nga mar say loxo bala nga koo raxas mbaa bala nga koo fopp ndax dañ yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da daan mar loxoom bala koo fopp wa min aadaabil akli bokk na ci teggiini lekk an tajxala nga def battanaka sa biir tulusan muy ab sulus li taxaami ñeel ñam wa wa tulusan akub sulus li sharaabi ñeel naan nga wa sulusan akub sulus li nafas ñeel nooga bokk na ci teggi ni lekk nga def sa biir ñetti xaaj benn bi mel ne lekk nga koy féetale benn xaaj bi des mel ne naan benn xaaj bi des mel ne dara nekku ci moom ngay féetewoo rek noyee ko ndax boo solee biir ba mu fees ak lekk ak naan kon noy yi du la yomb te du baax ci sa wéru yaram wa isa akalta ndeem yaa ngi lekk maxa xëy rik ànd kuru yow akalta nga lekk mimmaa ci la nga xam ne yalika dana sës ci yow bokk na ci teg yi ni lekk boo bokkee kenn ngeen di lekk nga yem ci sa kanam rek bañ a jege kanamam bañ a dem ca digg ba lu may digg ba dafa dafa am luñ ca teg loo xam ne des ko fay jëli ni ki fekkee ndawal ga mbaa lu mel na fa ñu ko teg kon mën ngay jëli ci digg ba te ñëwaat ci sa kanam wala taxus bul jàpp muy bul jël luqmatal ab tib xataa tafuruxa ba te wéyee al uxra tib ba ca des nee na boo tibbee bala ngaa tibbaat beneen ngay bàyyi ba sàq mi boobu ba mokk ba wann ko doora tibbaat beneen wala tata nafas te bul noyyi fit inaay ca ndab la inda shurbi ka fas ak naan dañoo bëgg boo dee naan nga bañ a noyyi ci pot bi booy naan ba yàgg nga bëgg a noyyi nga toppale pot bi noyyi dellu naanaat wax nañ sax sopp nañ ci sunna nga def ko yetti yoon naan ba yàgg nga teggi nooyi dellu naanaat def ko moom yetti yoon wal tubin na nga soril alqadaxa pat ba xan fii ka wali sëgimiñ su ma tuxaa witxu topp nga baamu ko mooy topp nga delloosi ko inchuta ndeem soob na la mooy li ma doon wax léegi mooy soo bëggee nooyi da ngay toppale pot bi ba nooyi dellu naanaat nooyiwaat dellu naanaat nag bu ko defee muy ñetteel ba wala taxu ba te bul gëndax li almaa ndox ma xabban ak gëndax li wala te massaxoo na nga ko ñeer massan ak ñeer sopp nañ nga bañ di guux guux yu rëy rëy muy def golox golox yow bëgg ngay def tuuti tuuti muy jàll ndànk ndànk muy gën a neex muy gën a baax ci yaram moo ci gi wax mooy ndànk ndànk ndox mi jàll ndànk ndànk wataloogu te ngay sàq mi taxaamaka saw ñam watu naimuhoo te nga koy nooyal mabaxam ak sàq mi qabla balaxi ci njëkk ak wannam ne boo tibbee ab tib da nga koy sàqami bu baax ba mu nooy lool lool door ko wann nag ndax lu mooy tax mu yomb ba rees te itam mooy gën a neex ci yow mi lekk watu naziwu te ngay setal faak sa gimiñ baax da taxaami ka ci gannaaw saw ñam bëgg nañ boo lekkee ba noppi sa gimiñ nga galaxliku mbaa nga soccu mbaa boog nga jël borosu um daal lépp li tax sa gimiñ du soppiku da am xet gu naqari ci ñam wa rek bëgg nañ boo noppee def ko wa in xasalte dem raxas nga yeddaka sa loxo dina la xamari ci ñaay ñaay mooy jeexiti diw mooy lu niin wala ba ni akum soow fa xasanun kon aj rafet la bu fekkee da ngaa lekk lu niin sa loxo niin ca bëgg nañ nga raxas sa loxo ba nii naay ba deñ ba tey boo naanee lu mel ni meew nee nañ meew dafa am ab niinaay bu des ci gimiñ gi kon bëgg nañ nga lax nga lax ndiku ndax gimiñ gi set watu xallilu te ngay dindi wala te ngay sekk riitu maa la nga xam ne taxal la ko aju na bi asnaani ko ci say bëñ mi ne taxaame ci ñam mooy taamu nañ boo lekkee ba noppi ñam wi def ci say bëñ nga fexe ba dindi ko ni ki jël bantu sekk riitu ak noo ko dindee rek wana ha tere woon na ar rasul yonante bi alayhi salaam xanil akli walis lekk wa shurbi ak naan bi shimaali ci càmmooñ yonante bi tey aay woon na naane loxob càmmoñ mbaa lekke loxob càmmoñ watu naawilu da nga jot li ida sharibta ndem naan nga ba noppi man ka nga xam ne xalaa yaminika nekk na ci sa ndeyjoor taamu nañ nag bu fekkee nekkoo fa yow rek boo naanee ba noppi nga jot li ka la féete ndeyjoor bu fekkee am na ku la féete ndeyjoor am na ku la féete càmmoñ donte sax ka la féete càmmoñ mooy kilifa du tee rek li sunna mooy nga jox ka la féete ndeyjoor ndax dañu ne yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam toogoon na ak benn saamu arab ak abubakrin siddiq bu baax moomu waaye saamu arab ba moo féete woon ci ndeyjoor abubakar féete càmmooñ waaye yonante bi des wa saam ba féete ndeyjoor la ko jox joxu ko abubakar daldi ne al ayman fal ayman wa yun haa def ne tere xani nafxi walis wal fi taxaami ci ñam wa wa sharaabi ak naan ga wal kitaabi akub téere taamuñu ngay ëf ak lekk wala ak naan lekk naan dañuy bañ boo ko ëfee dara bàyyi ko sigi ñu dem ca nga seexlu ko boo keneen seexloo kenn bañ koo lekk kenn bañ koo naan ñam wa ak lekk nga fa lay jaare yàqu bu fekkee ab téere nag moom moo xam téere fiq la moo xam téere addis la moo xam beneen la nee nañu dañuy aaye ku ko ëf ndax dañoo bëgg ku ko ormaal ñàkk nga ëf daal daal mel ni ak ormaal lañ ci jublu kooku nag kon xëy na fekkee dafa tooy nga bëgg mu gaaw woow xanaa comme say boo def ca suuf mbaa dara mbaa nga fendal ko waaye daal dañu bañ ko ëf ak téere waxaan ñu suur bi ak walis naan fii aaniyati dahabi ci ndabi wurus wal fiddati ak xaalis yonante bi aay woon na te it aay ak araamal la sax naane ci ndab lu ñu liggéeyee ci wurus ni ki ab kaas ñu liggéeyee ci wurus mbaa xaalis dañ daa waxan ci addis ba ne laa tashrabu fi aaniyati dahabi wal fiddati wala taakulu fi sihaafiha fa innaha lahum fi dunya wa lakum fi laaxirati dane woon bu leen naan ci ndabi wurus ak xaalis bu leen lekk itam ci bagaani wala palaati wurus ak xaalis ndax ndabi wurus ak xaalis daal yëfar yee ko moom fii ci àdduna yéen nag yéen a koy moom yéen jullit ñi ca alaaxira wala yam bax yi du yell li man ñeel koo xam ne akala lekk na al kurraasa roofat awil tawma wala laaj awil basala wala soble nii an ci ak gëjëmu ay yeddu xola muy dugg almasjida jàkka dañu wax ne roofat wala laaj ak soble ku ko lekk te ñorut day amee xet gu naqari kon dañ koy aaye dem jàkka moo xam jumaa la moo xam jàkka la joo xam du jumaa wax ne ne tux tux mu naqari itam ca la bokk way kurofu def na sib ay yàkkula mu lekk mu takkeen mbir muy aju sóonu lekk di sóonu dañ ko bañ lool xale yi mel ne ku fuuy ku ñàkk sant xéwal gi bu yàlla xéwal moom daal lekk di suuru daal moom ëpp naa def wa yukrahu def na sib ak ak lu lekk min asid saridi ci bopp cere ja di wax bopp cere ja waaye mooy digg cere ja dañoo wax ne dañoo bëgg buñ tegee ndab li nga lekk rek ci pegg bi te bañ a tibb ci digg bi boo xoolee saraa bi mën naa la lima saxa annahu alayhi salatu wasalaam utiya bi qisxatin min taridin fa qaala kulu min jawanibiha wala taakulu min wasatiha yonante bi andiloon nañ ko ak bagaan goog cere mu ne lekk leen ci wet yi te bu leen lekk ci digg bi digg ba nag bu amee luñ fay jëli niki nin baaxoo tege ndab yi fii lekk ndawal gaa yooyu nekk ca moom mën ngaa jëli ca loola wal mu xiyee tareef na anil xiraani walis lëkkale fi tamri ci tàndarma maanaam tàndarma di ko lekk di booleendoo ñaari doom saxandoo la wax ne wax ne ne aay nañ ko bu fekkee ne nag day loo xam ne moomoo ko yow dong ña ngi ko bokkal dañ ca am àq ne yow tey mel ne kon dañuy bañ nga jëlaale seen àq moo tax ñu bañ nga jël ñaari doom moo tax mën naa waxi la waxees na ne inna zalika naka loolee maxal absent bi mooy kat bu àndeek àndaale assurakaay ñi di way bokkaale fii ci moom ci ko waxi ñooñu wala ba asadit ayib bi zalika ci loolee maxa ahlika ànd ak sa waa kër aw maxa qawmin wala ànd ak aw nit takkoonu ñooñ da nga nekk ante yow atahamtahum di leen ko leel ñi wax ni moom liñ bañ ci jëlandoo ñaari doomi tàndarma mooy rek bañ nga ëppale ca ña ngi ko bokkal daa mel ne kon bu fekkee ñooñu sa waa kër la yaa leen jox la ñuy lekk mbaa bu fekkee du sa waa kër itam yaa leen jox tàndarma ja kon boo bokkee ñoom bu la neexee di jëlandoo ñaar ndax doo jëlaale àq kenn ndax lépp yaa ko moom yaa leen ko jox fekkoon da nga koo bokk ñeen nag la ñuy bañ kon nga jël ñaar ci ko waxi ñooñu ndax bañ nga jëlaale seen àq wala ba asa ayit fi tamri ci tàndarma ko sib si ak nuróog moom an tajoo la mu wëndeelu yeddu ko sa loxo fir inaay ca ndab la di tàkku la ngir nga lekk maa la nga xam ne tuuriidu da nga ko namm min ci moom nee na bu fekkee la ngeen di lekk dafa def ay xeeti doom yoo xam ne yemuñu mu ne kon mën naa am doom ya ngay bëgg du bokk ak ya keneen bëgg kon man ngay seet doom ya nga bëgg yow nga di ko taamu di ko jël di lekk ndax xëy na ya ngay bëgg du bokk ak ya keneen di bëgg kon sa loxo mën nay wëndeel ci ndab la bu fekkee ne day ay doom yoo xam daa wuute ya nga bëgg nga di ko tànn bàyyi keneen tam muy tànn ya mu bëgg walay sa xasul yadi déet raxas loxo xam la taxaami ci njëkk ñam mi ne sunnati bi bokk ci sunna illaa an yekkoon ndara bu dafa nekk bi xaa ci loxo ba azan sobe nee na nag bala ngaa lekk raxasu moom du sunna tolloo naag daal bu fekkee sa loxo moom am na sobe faaw day war nga raxas ko ndax sobe kenn sañu koo lekk te boo ko raxasut danga lekkaale sobe te war ngaa ormaal teral ñam wa waaye bu fekkee ne da ngay bëgg a lekk sa loxo taqul dara dara daal du aajowoo ngay raxasoo wal yax sil na raxas yaddoxoo loxoom wa faaxu ak gimiñam nga bax du taxaami ci gannaaw ñam wa mi nal xamari ci ñaay wal yu mab midd te na galaxndiku faaxu gimiñam nga mi nal la bani cim soow nee na boo lekkee lu am diw bëgg nañ nga raxas sa loxo ba mu set ndax nii naay ba deñ boo naanee soow wala am meew wala leneen lu niin tam nga galax di ko sa gimiñ ndax nii naay ba deñ ba tey ci sa gimiñ wala ko baam waaye waxan na ko léegi wa kuriha sibeef na xasul yeddi raxas loxo bi taxaami ci ñam wa aw bi cheyin wala ci dara minal xataan yi ci giiri sa bi lekk ba noppi jël sa loxo dugal ko ci luy xeetu ñam mel ne ku koy fompe sa loxo lu mel ne ak wal nga nga dugal ci sa loxo daal ko cay fomp dañ ko sib ëpp naa def wala nga dend aw sëb bi ñu waaru sëb mbaa bool bu def sëb daal jékki-jékki dugal ci sa loxo mel ne ku koy raxas sa loxo bëgg sa loxo set loolu ëpp naa def wa kasaalika naka noonu bin nu xaaliti ci ab cox ab cox sax bëgguñu nga mel ne ku cay raxasu mel ne nga lekk ba noppi dend ak ab cox daal jël sa loxo dugal ci biir mel ne ku ko koy setale waxadu xtalifa wuuteef na fii daalika ci loolee maanaam li mu la aaye léegi ci lekk ba noppi jël sa loxo dugal ci biir aw ñam mel ne ku ko cee raxas mbaa ci ab cox mbaa yu demee noonu la wax ne dañ caa wuute am na ñeen sib nañ ko te ak sib la waxan léegi am na ñeen itam dagan na kenn sibu ko waaye daa mel ne sib gi daal moom la indi ci yaxub téere bi wal tujib na nga wuy ji ida duxita ndem woyef na la ila walimatil moorisi jëm ci xew aji seetal boo ko defee moorisi aji seetal la boo ko defee ila walimatil horsi la ko ñenn ñi def muy rek xew ceet ilam yakun ndem nekkul xanaaka foofee lahun po mashhur mu di muñ siiwal wala mun karun du caageen lu bon bayinul li aji bir yana buñ la wooyee ci xew ceet te ràññal woote ba buñ jaaree ci sa tur daal ràññeel la war ngaa wuy ji buñ waxee aw nit ràññeel leen te nga bokk ci ñooñu it war ngaa wuy ji te buñ nee ñay nodd ca jumaa ja te nga bokk ca kon mel na ne ràññeel leen doonte jaruñu saw tur buñ nee ñay jàngale ci daara ja te fekk nga bokk la ci ñay jàngal ci daara ja it mel ne kon bool nañ la ca lu mel noonu nag war ngaa wuy ji lu may nag dafa dafa am po buñ fay siiwal di ko fa woote niki dafa def xeeti fay tëgg ya yooyu mbaa am lu bon lu fay am ni ki góor a jigéen di fa jaxasoo su boobaa kon doo saña dem nag wa ante yow nag fil akli ca lekk ga bil xiyaari nekk nga ci ak tànn nee na buñ la wooyee ne wuy ji bi moo mënta ñàkk waaye duñu wax ne boo demee faaw nga lekk ci ñamañ lay jox ñamañ lay jox moom boo bëggee lekk